professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne moo jiite département parasitologie ci faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar déclaré na candidature am ci élection présidentielle yu ñu dënmal fii ci Sénégal mu ñëwoon nag ci Touba Mbacké ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides di sàkku ci moom ñaan ngir am ndam ci li nga xam ne moom la soobu. jël si ndigal ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla fi yàgg ak képp kuy ci Sénégal ci Sénégal ñu ñëwoon fii pour wax ko ne bi ñu amee ndigalam ba pare bi ñu amee ndigal Touba ba pare te dañoo bëgg a liggéey pour Sénégal pour nekk président de la République du Sénégal dafa doon jar bi ñu ko waxee ba pare ñëw teg ko loxo yi tàllal ko loxo yi pour mu ñaanal ñu pour li ñuy def mu am barkeel ndax ñun sénégalais lañu waaye jullit lañu. waaye it murit lañu. professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire ñu dëppee ko GICAS di ñëwaat ci li nga xam ne moom moo tax mu bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle yi. boo xoolee sama jaar-jaar ci kàttanu yàlla boo xoolee li nga xam ne liggéey nañ ko Sénégal xam Sénégal am loo xam ne indil nañ ko Sénégal ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey ci wàllu wér gu wàllu social depuis ay juróom-ñaari at léegi ci suñu mouvement social action xam Sénégal nag parce que gox bu nekk dugg nañ fa gox bu nekk def nañ fa dara xam lan mooy metti ak lu mettiwul ñu jàpp ne war nañoo mën a ñëw sukkan sukkandiku ci li nga xam ne njiitu réew yi fi nekkoon liggéey nañ ko muy liggéey boo xam ne jàpp nañ ne lu rafet la liggéey la boo xam ne ku ci nekk béy nga sawaar ñu jàpp ne loolu bu fi nekkee ak li nga xam ne ñun jàpp nañ ne am nañ ko ci xam-xam jàpp nañ ko ci relation ci possibilité ñu jàpp ne ku ci nekk ci ñun am nga droit boo amee yooyu qualité boo amee yooyu yéene boo amee yooyu possibilité nga war a mën a ñëw nag ne ah man kat bokk naa damaa war a bokk fi ñuy dogale waaye boo boo mënee bokk fi ñu dogale bokk nekk kuy dogal moo gën mais nag dogal boo xam ne la dama ci bëgg ànd ak ñëpp man bëgguma xam gauche xaw ma droite dëgg la man sa bopp laay demal mais tal dama tàllal loxo Sénégalais bu nekk foo nekk pour que li nga soxla li nga bëgg. ñu ànd ko ñu defandoo ko pour Sénégal yëpp mu nekk parce que benn Sénégal laa xam mu nekk benn bopp ñu dóorandoo di xàccandoo loolu mooy suñu njariñ te loolu la ñu xam. professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne moom mooy africain bu ñu njëkk a nommé ci poste conseil spécial ci université bi nga xam ne moo gën a mag ci àddina bi di Harvard nekkee ci États-Unis di joxe xalaatam ci élection présidentielle yi ak candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a bokk. Sénégal li ngeen ko xamee mooy dëkku dëkku dëkku dëkku jàmm la dëkku waxtaan la man damaa jàpp ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo yeyoo loolu fu mu toll nii waxtaanee ko euh, te lépp lu nga xam ne daal pour man Sénégal mën nañ ko def ba ñëpp nekk bopp nekk benn jàmm loolu dara nekku ci waaye lépp nag ñu teg ko ci yoon ñu teg ko ci ci teranga ñu teg ko ci sutura teg ko ci waxtaan. njiital mouvement social action seen tawfeex suñu yitee di xam ne ne donte politique bi jamono yi jaxasoo na lool ci réew mi lépp mën nañ koy amal ci waxtaan akuk déggoo jiital intérêt réew mi ndax loolee rek moo ñu jëmale kanam. su ma soyoon làmb ju du tas kenn du fi wóoroo moo tax ma jàpp ne comme yi noonu lañ ko gisee ma ne ah man de dinaa ñëw dox dox boo xam ne dama ne ñëpp ñëpp a war a bokk ci ma ci man mooy tàll naa loo xam ne pour man xàmmewuma ku weex bi xàmmewuma ku xees ki xàmmewuma ku gàtt ñun ñëpp ñoo war a bokk pour ce Sénégal noonu lañ ko mën defaree man su ma ñëwee ma ne la professeur Daouda maa war a defar Sénégal te ànduma ak nit ñi damay leen di ndax damay ndax sama bopp damaa jàpp ne réew boo ko jiitewee ñëpp ngay jiite muy ki féete droite ki wër fi gauche ki nekk fële ñun ñëpp dañu war a ànd benn te loolu pour mu am il faut que ñu ko am koo xam ne jàpp na ne moom moom rek mënut a dem man su ma leen ne man rek mënu maa dem man su dul réewu Sénégal bu dul Sénégal lam daa ma dem fenn moo tax ma jàpp ne bu ñu waxtaanee ñëpp ñëpp ànd te nag man mën naa ko porter bëgg nekk un candidat de consensus koo xam ne ñëpp dañ ma koy nangul koo xam ne lépp luy yéene ku ci nekk ci groupe yooyu ngay dégg ak seen i ak seen i ñu waxtaane ko jubóo ñu teg ko ci place pour que incha allah bu ñu ko tegee rek Sénégal moo ci am moo ci am ndam. bëgg-bëgguk Cheikh Mouhamadul Mountakha gi nga xam ne jamono yi waxoon na ko mu jëm ci dëkk bu sell bi di Touba ngir mu moom boppam loolee professeur Daouda Ndiaye àdduna ci. mu sëñ bi soxlaa moom sëñ Mountakha bu sëñ Babacar si soxlaa sëñ maa yi soxlaa ne li lañu bëgg ñoom ñoo xam ne la dañoo bokk ci ñi téye réew mi lu ñu bëgg rek. war nañ leen ci fekk si waxtaan ak ñoom ba niñ ko bëggee ñu defee ko noonu ak ci forme boo xam ne noonu la ko jëg mais damaa jàpp ne koo xam ne ñëpp ndàngu nañ ne bëgg na réewam bëgg na ko xam joxe na exemple bi Covid bi ñëwee bi fi Covid bi ñëwee gis nañ lu fi liggéey balaa kenn génn jël na poosam teg ci taabal bi ak heure bu problème amee woote ne pour xasaayit woote ne pour alxuraan donc kooku bu waxee dara li ñu mën a jàpp rek mooy njëriñu askan wi la njëriñu réew mi la donc kooku muy suñu sëriñ du ñu xalif bu waxee dara dañuy xool noonu ban forme ci ban aman anam lañ ko mën defee pour que loolu mu bëgg moom mu nekk. ci fàttali professeur Daouda Ndiaye moom moo inventé test bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllum sibiru te it at mu jot ci màggal Tuubaa gi dana yëkkati garab yu bari jébbal ko waa daayira Muxaddamatul Xidma ngir ñu ci taxawu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñëw ci jumaa ji.